rang muy gaaw xibaar yi la ñu koy doore mooy Kylian Mbappé mi nga xam ne yi képp laaj la Aladji Malick TV di def loolu ca commentaire YouTube la ndax da bëgg ngeen mu toog wala dem Euh, mooy avantage am yéen a koy conseillé ci Aladji Malick TV conseillé euh, seen équipe yi ngeen xam ni moom ngeen sopp ak Casemiro mi nga xam ne euh, Paris Saint-Germain yàgg na ko sonsé di ko xool ay dossier am nu mu dem waaye ki nga xam ne mooy Casemiro bëggut a dem waaye gone Paris Saint-Germain nanguñ koo bàyyi Casemiro équipe ba nga xam ne moom la ne di meilleur club du monde yaakaaruma ni dina xalaat wala xel dina xalaat muy yebbi leneen lu dul toog ba contrat am jeex ak Sadio Mané mi nga xam ne euh, démb a xam ne fële nga xam ne euh, mooy euh, Liverpool bi muy dajee ak équipe bi nga xam ne moo nekk Aston Villa te mu doon ca buteur Arou Diop mi nga xam ne jaaxaloon na adduna wala ngal kàpp fi mu toll nii yeewu na ci jàmm ci suba ji cuuy nga xam ne daanaka Barcelone ak fii rawante lu deux heures de temps. yeewu na ba mi ngi ci jàmm ak salaam ak Marca mi nga xam ne moo nekk ci réewum Espagne di journal boo xam ne euh, pro Madrid la euh, signature ba nga xam ne mi ngi ko doon jaaba jonge fii mu toll nii marka leeral na ko naññ ndax dóor na ko euh, ci xëtam bu njëkk 9 millions d'euros la ki nga xam ne mooy doomu Allemagne bi di fayee ko ci at mu jot ca gone